asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu man la soxna Umu Kalsum si bu maam Dabaax Malik Haj Abdul Aziz si Dabaax maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu waa senegaal yépp ak waa àddina di nuyu magu diine yi ci réew mi teg sama nuyoo ci euh, Sëriñ Babacar bu Pape Mouhamadul Mansour al Khalifa général de Tijane di am di ko ziar si di am mettit nag lool tey ci ale bu sam uh, Pape Khalifa Ababacar si ñaawteef gi fa yàq ay yàqkat jaar def ñaaw na waaye nag ah ñu bàyyi ak yàlla ak yoon yàlla baax na ndax dañoo xamul boroom place ba moo tax yàlla yàlla nañu ko yàlla fayal si yàlla nañu ko yàlla fayal di ñaan itam ci réew mi fii mbas mi toll àddina toll fi nit ñi jaaxle nañ jàq am na jaxasoo am na wéet am na itam waaw man de ku jaaxle laa ku tiit laa waaw yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi ñu yàlla delloo ci xel yi ba jàmm mën a am ba senegaal suñu Sénégal gu njëkk ga ñu amoon yàlla nañu ko yàlla joxaat ndax fi ñu jëm nii tiit naa torop tey nag euh, ci guddi àjjuma ji ñu sàkku rekk def ay ñaan ci lu waay man wàllu ñaan am na lu maam da daan joxe man am na yoo xam ne am na yu ma ci xam lu waay man rek nga def ko ci wàllu fatiha salaatal fatiha juróom ñaar fukki basmala tëjewaat ko salaatal fatiha ak fatiha ndax ñaan sa ñaan yàlla génneel ñu fi lii fi xew te xamuñu ko ma masuñu koo dund ñaaw teef yi yokk ñaaw ñaaw yi bari na yàlla def jàmm ci réew mi loolu la ñuy ñaan yàlla nañu ko yàlla defal ci barke papa Cheikh Al Khalifa si radiallahu taala anhu ñu ngi leen di ziar bu baax tey jéggul kàddu yi nag lu ci jàdd rek ci man la dama mën dama ko manewul moo tax waaye nag foog ma def ko ndax li am tey dafa ñaaw yal nañ yàlla defal jàmm